askan bi ñu wootee askanu Sénégal euh, ñiy woote seen bopp ay guinéen tey naqarlu nañu xew-xew yi am ak fitna bi am fii ci Sénégal te daal di seen njël seen njaal ci askan ci nit ñi nga xam ni ñàkk nañu euh, surtout ci peuple sénégalais ñi ngi oote di ñaan Kep kuy sénégalais da nga delo ci ci sa ciossane lo xam li ka lal mo doon waxtaan ak jamm ngir mu ñu mën a faj jafé jafe suñu dëkk yi ñuy wax Sénégal ak Guinée dañu laaj ñu daal di delu ci li nga xam moy suñu ciossane surtout ci caada ak ci nite bi Afrique amoon pour mun a génnee ay yoon yu dëggu yu nu mën a may ñu tabax jàmm guy yàgg jàmm nag ku ko dégg moom mooy laytaay li ñuy wax koom-koom ak jëmale askan ca kanam pour jàmm mën a am dañ ko war a tabax ci kaw ñu daal di delluwaat ci suñuy cosaan delluwaat ci suñuy sañ-sañ delluwaat ci ay jikko jikko yooyu ñu xam fii ci Sénégal ak ci Afrique de l'Ouest bii ñu nekk mooy ñu dañuy jiital bëggante dañuy jiital nawloo surtout nag ñu lal ko ci dëgg ak teraanga ak moom sa bopp ak li ñu ootee tey àq ak yelleefu doomu aadama loolu yëpp ñu koy teg ci kaw muñalante ak àndandoo ngir loolu nag moo tax di gën a bëri ci ñun dañuy dañuy dàq li ñu oowe violence pour mën a moytu ay xeex yi am ci diggante nit ñi ngir mun a gis ay solution ci suñuy problème te benn yoon rek lañ ko mën a def mooy waxtaan ak li tubaab di wax négociation te garantir képp kuy doomu aadama kuy dund fii mu mën a bokk ci askan bi mu mun a bokk ci réew mi daal di bokk ci développement réew mi ci boppam kon dañu war comprendre ni Sénégal dëkk bi ñu woowee Sénégal ak Guinée peuple yi fa nekk benn peuple pour clarifier mu leer ci boppu askan bi suñu delloo suñu cosaan kooku nekkul ci déclaration ba man naa ko ci yokk suñoo leen déggee li ñu wax réew déeniyan ko ki ñu wax tel Koli Tegela Ba Fuuta Jalon lu jóge ñëw Sénégal taxawal fi réew deen yam El Hadj Omar Foutiou Tall bi mu demee Fuuta la ñëw toog suñuy maam daggal ko ab suuf fële ca Dingiraay Thierno Souleymane Baal Fuuta la ñëwoon toog fa pour jàng nan la révolution islamique amee kon nag ñaari askan wi ñuy wax muy li tubaab bi tuddee ab sénégalais ak li tubaab bi tuddee ak guinéen benn askan la mënuñu len les kon nag ñi nous suñu mbokk yi ñi nek ay guiné manam ño xamné sen mam qui woon Guinée fi wala sen papa Guinée ñëw fi wala ñu fekk Sénégal nekkuñu ay parce que nous ño xamné ay ressortissant nous, la ñu Sénégal bi ko xel ñoñu xamni ni nañu fi nek fi ay nañu ni Nous ci problème politique réew mi nous la la sénégalais bu mu ragala taxaw revendiquer ses droits politiques ndaxte duñu ay étranger ku man askane Sénégal gi la Sénégal gi sénégalais la donte ne samay maamaati maam ñoo jógoon Fouta Djalon ci jamono jooju ma ma doon wax sànq ngeen entre parenthèses. pour mu leer ci bopp nit ñi donc nous ngi wax ni euh, dañu laaj tey jii nañu trouver ay solution Madame, dialogue nous avons que nous ñi respecter les lois et les règlements du pays Nous ngi ñaan muy kujje gi nañu delloo si fii toog waxtaan gis ay solution yu mën a yóbbu réew mi kanam ndaxte fitna bi kenn bugg ko euh, pour nag ñi ñi ñuy ootee guinéen ñu ngi leen di ñaan di leen fàttali euh, donte ne ci CEDEAO CEDEAO lañ nekk buy garantir liberté de voyage entre les deux pays de garantir nit les gens ne que espace CDO, nous ne peuvent pas faire sans pour autant de séjour C'est ci loi et règlement nous pour l'ambassade, bi inscrire carte consulaire euh, pour autorité sénégalaise nous comprenons ni Sénégal kenn warut a nangu ñu dugal ko ci guuta commencer par ñoom ñi yore nguur gi nañu toppatoo nit ñi respecter seen àq ak seen yelleef parce que li ñu def ay jigéen fekk leen ci seeni kër ñu ngi yore seeni doom di nampal jël ñu mool ni cent personnes taxañ leen yóbbu leen frontière Kédougou sànni leen foofu amul kenn ku leen di toppatoo loolu dafa ëpp nañu bañ a utiliser nag ñu ngi leen di ñaan ñu bañ a utiliser un discours ethniciste buy tax yow nga mën a jël benn askan joxoñ ko ne dañoo bokk ci ay forces occultes te nit ñi xam nañ loolu dëkk kon nañ ci bàyyi xel ñi ngi wax ni ñi ngi ñaan sénégalais guinéens africains ñi nga xam ni ñoo nekk fii ñuy wax Soudan occidental comme ni Léopold Sédar Senghor doon wax Je ne ko doomu aadama ci seen refondation de la civilisation de l'universel Madame tabaxaat civilisation boo xam ñépp ko bokk loolu ñu ko Sénégal te ñun nañ xam ne tamit loolu mënut am culture ak civilisation kon nag maa di Tewai iyo kutu jiji olof lu sama mbokk eh, kan. di wah, ñun ñi nga xam ne ñooy représentant la communauté guinéenne di di Sénégal dafa am ñetti mbir yoo xam ne dañ koy tout temps xam ngeen euh, ñun bu sama suñu ambassadeur bu ñëwee fii ñun lan lañ koy njëkk ñaan pour mu defal ñu ñetti la benn bi mooy ñu dimbali ñu am carte consulaire ci diir bu gàtt ak mu bañ a seer ak ñu am suñuy papier ñu war a soxla ci état civil ci consulaire ci consulat bu loolu paasee sàmpa dañ koy ñaan fu bépp guinéen fu mu nekk fii ci réewu Sénégal bu amee difficulté mu ñëw wàllu ko mu jàppale ko ci li mu gën a gaawe ñetteel bi mooy bu ñëwee na xool ñun communauté sénégalo d'origine guinéenne ñu dundee ak communauté sénégalaise ñoom it ci ñaar état bi mooy état Guinée ak état Sénégal ñoom it lañ ko jàppee noonu ñu doxalee ko noonu ndax ñun ak yéen benn lañu ñoo bokk liggéey bokk fu ñuy toog waxtaan ñoo bokk defandoo lépp te ba pare dañoo bokk di séyante suñuy diggante donc dañuy ñaan chaque fois bu suñu ambassadeur ñëwee dañ koy ñaan moom mu vraiment mu defal ñu ñett yi mooy suñu yitte fi bu loolu passé avant suñu représentant diplomate bépp ku fi ñëw muy ambassadeur buñ toogee di waxtaan da ngay dégg mu naan vraiment ñun dañoo kontaan ci yenn communauté guinéen ñu nekk fii parce que état Sénégal nee nañu yéen te ngeen respecté seen liggéey xam ngeen seen liggéey rek ak seen julli dem julli ci jàkka bi moom ngeen di def vraiment maa ngi kontaan ci yéen waaye nag gis nañ léegi depuis quelque jamono affaire bi dafa xaw a changé ci dule les côtés mooy suñu côté mooy ci lépp ñu koy gis ci réseaux sociaux ñu koy gis aussi ci suñuy côté côté ñun nag lu ñuy wax mooy loolu suñu pàpp yi ak suñu maam yi fi njëkkoon ñu jëlewuñ ko ci ñoom ñoom dañ ñu jàngal ñu liggéey topp suñuy diina ak suñuy njaboot ñu wax ne ñun ak yenn benn la bu ngeen gisee aussi monsieur le ministre Serigne Mbacké toog fii du question politique du leneen dañoo jaaxale fukk bunt yu bari waaye buñ ko jotee def ñu ubbil bunt bi ñu wax ko suñu yitte ak luñ soxla mu jóg taxaw jàppale bi ci comme nag comme te ñun dañoo nekk nit ñoo xam ne aussi dañoo dañu jox responsabilité communauté bi bu fekkee gis nañu kenn koo xam ne dañ dafay taxaw pour jàmmu Sénégal ak jàmm communauté guinéen ak jàmm entre Guinée ak Sénégal moo tax ñu ñu sawar ci loolu pour ànd ak moom ti ci liggéey pour jàmm am Sénégal du leneen donc ñu ngi koy gërëm kilifa yi aussi ñu ngi koy gërëm di ko sant ñun politique ñu dañuy gis rek loo xam ne vraiment comme sama mbokk yi ni ñu ko waxee ci lu am fii mooy diggante état ñaari état yi am loo xam ne c'est vrai am na yu ñu yóbbu ci frontière ba du lu ñu rafetulu mais dañoo wax ne que entre communauté guinéenne ak communauté Sénégal ak ñaari état yi bu loolu xewee buñ ko waxtaanee xëy na mun nañ trouver solution yu gàll loolu moo tax ñuy ñaan état bi état bi jàpp ci loolu vraiment lu mel loolu ñu xool nuñ koy defee te mu gën a rafet kontaan nañ nag ci sécurisation parce que fii mu bu fekkee Sénégal amul jàmm ñun du ñu am jàmm fii keroog affaire bi bu mu amee amul kii guinéen la kii malien la kii leneen la kii français la kenn liggéeyul comme jafe-jafe bi ñun ñëpp a ko dund lu ñu war mooy ñu ñaanal Sénégal jàmm parce que jàmm bu amee ñun ñëpp a ko soxla ñun ñëpp la kenn du wax man fii laa bokk affaire bi du dal loolu vraiment ñu ngi rafet rafetlu force de sécurité lu ñu taxaw pour vraiment sécuriser réew mi ñu ñëpp a ci ànd mun nañu wax ne que vraiment ci liggéey lañ def ñu kontaan ci gouvernement bu ko defee dama ya, ci bëgg lakk tuuti sama mbokk parce que am na loo xam